man la maam Cheikh gi président association liggéey jariñu partenariat ak Mouride Info di waxtaan ci wàllu fagaru jëm ci feebar yi nga xamante ni day wàlle muy maladie infectieuse yépp sem sob na yàlla saa su bis bi dellusee ku ñëw Mouride Info fekk nu fa